dans la commune de Yembol Nord, c'est Monsieur le maire euh, Daoud Ndiaye. Nous sommes ici avec le préfet du département de Pékin, M. Moussafa Ndiaye, et le sous-préfet de l'arrondissement des Niaï, euh, monsieur M. Omar pour procéder euh, au lancement du Clean euh, de ce 1er février. Nous sommes précisément dans le quartier de Darussalam 6, entre la cité Comico et, la, et le quartier Darussalam 6. Euh, nous sommes ici sur euh, un axe qui vient d'être réalisé par le Promoville, qui constitue à faire la ceinture de la cité Comico, qui passe également par Dar Salam 6. Nous sommes venus répondre à l'appel du président de la République, euh, faire d'investissement humain, inviter les populations à venir euh, entretenir ces lieux. Et j'avais dit tout à l'heure qu'au-delà de cet appel, on a une convention qui nous lie au Promoville et qui consiste à entretenir ces axes routiers qui viennent Donc euh, nous avons constaté une forte mobilisation de la commune, notamment des femmes, euh, des jeunes, des associations euh, fêtières, du, du, conseil communal, de la jeunesse, euh, euh, de l'ensemble de, de, de, de, toutes les parties prenantes qui sont venues positivement répondre à l'appel du président de la République. Nous avons constaté que sur le plan national, les populations se sont appropriées cette journée Euh, et qui euh, déjà est inscrit dans leur calendrier parce que tous les premiers samedis du mois, nous constatons que c'est l'ensemble du Sénégal qui se mobilise euh, pour vraiment entretenir les quartiers, entretenir les coins, les recoins. Euh, euh, l'environnement et le cadre de vie étant une compétence transférée aux cultures territoriales, euh, c'est vraiment un appui pour nous de pouvoir mobiliser ces populations, prendre le prétexte de cet appel du président de la République pour euh, vraiment euh, euh, nettoyer les quartiers et dans l'ensemble du, du, Sénégal. Nous sommes également avec l'UCG qui a déployé une unité sur place qui, qui est là depuis le premier lancement et qui nous accompagne pour vraiment la réussite de ces journées. saluons la présence de ces autorités qui sont là. Euh, et à chaque fois que nous faisons appel à eux, ils sont toujours euh, à nos côtés. Donc c'est l'occasion de remercier le préfet du département, M. Moustapha Ndiaye, mais de remercier notre proche collaborateur, M. le sous-préfet Ndiaye, euh, M. Omar Dia. Nous vous remercions d'être venus. Merci. C'est bien, c'est bien. Moustapha Ndiaye préfet du département de Pékin. Comme vous le voyez, nous sommes là dans le cadre de cette journée nationale de la propreté, appelée Cleaning Day, organisée tous les premiers samedis du mois. Et nous sommes à la deuxième édition et dans le cadre de la tournée que nous menons avec les autorités administratives que nous, tournée que nous menons dans tout le département de Pékin pour voir le niveau d'appropriation par les populations de cette belle initiative du président de la République qui participe à améliorer le cadre de vie des populations. Vous savez que l'environnement et le cadre de vie est une compétence à laquelle les collectivités territoriales sont associées. C'est pourquoi nous avons constaté ici à Yumble Nord les populations sont sorties en masse avec à leur tête le maire Daoud Ndiaye pour s'investir massivement, mais également pour faire de cette euh, journée de propriété nationale une réalité ici dans la commune de Yembel. Nous avons constaté une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des couches de cette population-là de Yembol Nord, les femmes, les jeunes, les organisations de femmes, même les personnes âgées, sont avec le maire pour euh, veiller à améliorer leur cadre de vie. Ici, dans le quartier de Darussalam, nous sommes au cœur de, de la réalisation de Promoville en partenariat avec euh, la commune de Yumbel. Yumbel, a bénéficié, Yumbel Nord qui a bénéficié de 13 km de route euh, revêtue pavée Donc il est impératif que l'entretien de cette infrastructure-là euh, soit assuré par les populations elles-mêmes d'abord, mais également accompagné par l'élu local. C'est l'occasion pour moi de féliciter le maire pour cette belle mobilisation et les exhorter à réussir davantage les éditions qui vont venir. Et je sais qu'avec son engagement, mais également avec l'appui de, des populations et l'appui des structures de l'État, euh, ces, ces cliniques day-là seront convenablement menées dans, le, dans la commune de Yombol Nord, qui a à sa tête un maire extrêmement dynamique et jeune. Donc je remercie les populations, je remercie les autorités locales qui sont là, venues massivement répondre à l'appel du président de la République, mais adhérer aussi à cette idée qui est de rendre propre, rendre plus agréable l'environnement et le cadre de vie des populations. Je vous remercie. Ah, waaw tey dañu ñëw fii ci Yeumbeul Nord ñi ngi def benn tournée boo xam ne nii day jéem a nemmeeku li nga xam ne nii moom la collectivité territoriale yi di def moom la population yi di def bi nga xamee ne nii président lancé na li ñuy wax journée nationale de la propreté ñu koy amal comme ni ngeen ko xamee samedi bu nekk bëccëgu samedi bu njëkk ci weer wi. nag fii bi ñu jógee ci yeneen commune ñu ngi fii ci këmbal euh, commune Yëmbal Nord bi nga xam ne nii Daouda Ndiaye moo ko jiitee bi ñu ñëwee fekk nañ fi mobilisation bu am solo jigéen ñi mag ñi góor ñi ndaw ñi ñëpp ñi ngi ànd ak seen maire Daouda Ndiaye pour bale pour nettoyer li nga xam ne nii rendre gën a gën a ñoŋal seen dëkkuwaay te fii gis nañ ne fii vraiment à yëmbal maire bi ànd na ko ak ñi mu ko war a ànd ak ñëpp ndaxte moom dafa engagé dafa engagé aux côtés des institutions de la République pour jëmmal li nga xam ne ni moom mooy bëgg-bëggu président ndax dëppoo na ak moom aussi bëgg-bëggam donc dañuy ñëw fii pour sargal ko ndokeel ko féliciter ko ci mobilisation bi ñu fi gis quoi. maa ngi tudd Soxna Ndiaye je suis le premier adjoint au maire de la commune de Yeumbeul Nord je suis responsable des femmes de Benno Bokk Yaakaar. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, monsieur le préfet di sant monsieur le maire Daouda Ndiaye di sant monsieur le président de la république bi nga xam ne tey moom moo tax ñu taxaw fii. parce que xam nañ ne tey jii euh, set setal bi mu wax tey zéro décès defe naa yëmbal commencé na ko def bu yàgg mais nag tey. dafa ñëw chaque fin du mois premier premier samedi bi ñu war kaa def ci euh, Sénégal yëpp ñun tey ñu war ko def fii tey à Comico Darou Salaam 6 ñuy sant nag maire parce que maire dafa dajale groupe bale yi nekk ci quartier yëpp quartier bu nekk am nga groupe bale boo xam ne chaque jour am nga jour booy bale ba mu jox leen ay matériel jox leen ay bale jox leen lépp yàlla def nag tey ñu ñëw lii jàppale président de la république fas yéene ko continuer nag dootuñu ko arrêté parce que tey jii set ñun la war ñun jigéen ñi parce que dañoo war a set suñu biir kër set ci mbedd mi ndax suñuy doom moo tax ndax suñu sànnee mbali tey ci mbedd bi suñuy doom ñooy ñëw for ko ñooy feebar suba ñun ñoo leen di yóbbu ji hôpital ñoo leen di faj te lañ leen di fajee ji xaj xaj na ci ñun kon ñun dañoo préparé wu nag takk suñu ndigg ci ginnaaw monsieur le maire def li président de la république ba mu yàlla may ñu ci ndam di gërëm nag préfet femme yi yëmbal yëpp a ngi nii tey responsable femme yi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ñëpp ñu ngi fi ak Benno Bokk Yaakaar ak jeune fille yi ñëpp a jàppale ji monsieur le maire ci lii ñuy def ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci beaucoup